Eh, sama doom bi ma jur tuddee ko Serigne Saliou Seydina Thioune ren laam juróom-ñaari at daf maa seetaan ci internet bi may def social di may ay xar mu woo ma ne ma papa dama bëgg xar ma ne ko waa Seydina yow nooy nekkee France di ñaan xar looy dee xar moom ma damaa bëgg xar may ma xar nga indil ma ko France ma ne ko noonu loolu mënul nekk Seydina xar bi mënuñu ko dugal ci avion bi di ko indi France ma ne ko léegi bàyyil ma yóbbul la ko sa kër maam Ndar ñu lewatal la ko defaral la ko ba mu baax léegi am nañ ay pexe yoo xam ne ndawal li mën nañ koo jaarale ci avion bi ba mu yegg si nga jariñoo ko mu ne ma d'accord naa waaye léegi comme nag sama doom moom mi ngi tàmbalee seetaan li ci réseaux sociaux mi ngi tàmbalee seetaan li ci télé yi bay xam li baayam di wax ak li baayam di jëf waa leneen li nag maytuma ko nit te nag waaw tu verras parce que am na ñaari plainte yu jot dugg tabaski bi moo tax fi mu ne nii euh, yoon liggéeyul gars yi jël pause ndax dem julli ji ñuy dem seen i dëkk ñu jullee Ndakaaru waral ñooñu fi mu ne nii tabaski wuñ ci kaso bi waaye ñaari plainte dugg na mayetuma ku nit nit kuy taxaw moom teg photo Omaro tudd turam déedéet bañu ma dal sama kaw dalal sama kaw waxal la saf loolu bañal ko nit parce que métier bi ma nekk ak ci li may yëngu ak fi ma féete bañ ko wax ci man lu ñaaw bañu ma ko waaye dama ne sama photo moom ku ko tegati wax ba saaga may nay moom ku yàlla bind mënta tee moom la déggee sortie am la ci yoo xam ne nga ko mu met la wala mu que xam nga lu tax hmm. ay ay innocent ay innocent ñoo koy wax ñoo xam ne xamaluñu dara Umaru mais ay wëyoo ki bandi yu tekkiwul dara yu demul fenn amuñu fuñ jëm ñooy làqatu ci seen i ginnaaw di leen mosal ay 30 mille ki 50 mille ñu ne ñoom nag ñooy jaay mu fit di génn ci internet bi di taf sans photo di ma saagee ndey loolu maytubu ko nit 10 ans de carrière laa def di ko baale mais 10 ans yi man na c'est fini képp ku génn ci ci internet teg sama photo tudd sama tur man wax ma wax du ñaaw ci kaso bi ngay dee kuy gaaruwaale nag ak di dund di wax ba ñëpp xam na man a sama yoon newu ci yow parce que tuddoo sama tur dafa sans photo waaye sama tur ak sans photo moom ku ko defati ci internet ma yóbbu la ci kaso bi